ay almiyaan mooy borom bët yu am tooke borom bët yoo xam ne lu mu xool am na ci ay dëgër la am na si ñoo xam ne bu ñu xoolee dara yéen ko loola yàqu am ñoo xam ne bu ñu ko nee jàkk setantal ko rek dana am lu naqar dana ci am am nañ ci ay fu ñu dëgër fu ñu dëgër fu ñu dëgg ci jamono yonente bi sallallahu alayhi wasallam fàtte naa waajo nu mu dafa doon sangu ci benn espèce u tappaat bu ko wër bu gàtt mu nekkoon ku yàlla bindee bind bu rafet yaramam rafet na muy sotti nit ki ndox am ko roog ay musuma gis lu dul tey ku rafete nii yaram ak rafet yaram waa ji le am nañu ko dégg waa ji bi jant daataan soow cër yi banque muy bëgg a dee yonente bi sallallahu alayhi wasallam ana ku ngeen ci xalaat ndax moom bi mu ko xoolee xam na ne bët la lu ku ngeen ci xalaat ñu ne ko diw ndax ba mu romboon na ko muy sangu mu wax nangam ñu woo ko mu raxas fii raxas fii raxas fii galax ni ko ñu tuur ko waa ji mu daal di jóg kan mu satti min al iqaab daal di jóg dara jëfatu ko moy wayus denul miyaanu sharia ci bopam saxal na miyaan aynu moy bëtt bo xamne dafa ànd ak toke moo tax ulama yi fuqaha yi neñu dañ koy tecc ci këram wayus denul miyaan xay sustahara bi dur si manzili na fekk na ci kërëm lañ koy tecc na fekk na nak dafa siiw ci ne lore na lor yu bari ci nit ñi ci bëttam amna ci bëtt amna ci lamiñ amna na ñoo xam ne wala fi wax ciat wala fi ñoom xam nañ ko deug nga ayu bët ayu lamiñ ulamaa yu bari dañ ciy musloo muslu ba tey boo seetee ah, ay xadis yu bari wax na ah, tookay bët tookay lamiñ kon loolu lu sax a sax la loo xam ne am na benn conférence bu ma defoon tey wax mbiri euh, li wala fi wax euh, bët yi gudd euh, ki ñuy tooñ ak yooyu misaaloon naa si affaire vampire yooyu fa jógee ba ñu di ko tuddee ay nit di ko def ay film ak yooyu ak affaire maanaam jargoñ yooyu ak wang yi nga xam ne day naan euh, gerte gi te du du fukk doom bi di ko xara ak itam ni nga xame ne sel yu noonu lay naane sa deret te du la jam du la du bët ni nga xamee ne moom jargoñ yooyu mën nga teg fii euh, dara ñu naan ko te nekk ca kii ba te nekk ca ca toiture ba waaw ba noppi te doo gis fu muy jaar waaw ñu bare bari ci ay rab yoo xam ne euh, su borom bind na leen noonu muy kéemaan الرحيم ولا بن يتي ولا بن خنتيف ولا لن جن جل كل هنتوا